bàyyi ba ca des mën nañ ne ay cheikh lañu mën nañ ne ay doomu ndey lañu mën nañu ne ay xarit lañu waaye léeg-léeg ki suñu société euh, dañuy waxe noo xam ne euh, lañ cay jublu mooy naax saayal wax taxawal jëf te loola itam day doon loo xam ne lu doy waar la ndax itam euh, wax mooy leeral jëf waaye jëf mooy dëggal wax ndax lépp loo gis mu aju ci jëf bala ñoo xam nuñ koy jëfee wax mooy njëkk a ñëw leeral niñ koy jëfee waaye léeg-léeg nag dañuy waxe noo xam ne day mel ne jëf moom mën naa am te wax du am te la cay gën a doy waar mooy euh, ñay waxe noonu léeg-léeg ñuy firi waxiinu mag moo xam ne dégguñu waxam waaw ndax suñu mag ña fañ àggoon ci xam-xam fañ àggoon ca dégg jamono fañ àggoon ca jubóog borom bi subhaanahu wa taala kawe na lool ba saa ñu àddoo rekk ku bëgg a firi seen wax na teey te mooy wax ji kilifa waxoon ne nañu xaar ba yàlla di fay wax bàyyi jëf wax ju am solo ngoog nag kilifa googa wax jam wax ci ñun suñu aliwo ju gàtt ak suñu xel mu gàtt ak suñu xam-xam mu gàtt mën nañu koo dégge ne rek wax lu mu rëy rëy rëy su fekkee lañuy wax luñ mën a jëf la bu àndut ak jëf rek amul solo mën nañ koo dégg déggin wu mel noonu waaye tekkiwul ne nag dane nañuy jëf rek tabañ di wax déedéet euh, léeg-léeg dañ ciy juum ba ci suñuy biir wax sax léeg-léeg nga dégg ñu naan diw dey ku bari xam-xam la waaye li ma neex ci moom mooy du wax waaw diw dey moom xam na lépp waaye du ko wane fenn du wax euh, ba nga xam ne ci méthode njàngale yéen yi ni mu wuutee ndax am na ñoo xam ne seeni njàngale win seeni métode mooy dugg ci classe moo xam école la moo xam université la ñu yor bic wala craie wala tabarakallahu di jëfandikoo ay cahier wala ay tablo moo xam tableau numérique la wala tableau classique nuñ ko mën a utiliser rek di jàngale ñooñu seen méthode lool la am ñoo xam ne seen méthode mooy ay aliwa ak i aki xalima wala ñu lal seen der wala seen sajaada wala seen bassan wala seen pliant am ñu leen wër ñu leen di jàngal moo xam alquran dañ leen di jàngal wala dañ leen di tëralal ay téere am na ñoo xam ne loolu mooy seen méthode am ñoo xam ne ci ay micro la ñuy jàngalee soit ñu nekk ci ay daayra wala gàmm wala ay conférence wala ay cant wala ay màggal wala xew-xew bu mu mën a doon mbooloo war leen ñu yor ay micro di wax mbooloo may taataan wala sax ñuy jëfandikoo média yi muy rajo wala tele wala ay site internet wala média sociaux yi wala jumtukaay bu mu mën a doon ñuy jàngalee noonu su ko defee nag léeg-léeg dañuy jël ka nga xam ne day jàngale daara wala ca classe wala majalis loola muy jàngale moo ne day wax de waaye ginnaaw du wax ci ay micro ki média dañ naan moom day ku noppi la bëgg a jàpp ne kay wax cay micro ki média moom xëy na ku bëri wax la fekk déedéet méthode yi moo wuute am na ñoo xam ne ci ay daara ak école lañ mën a jànge am na ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla ci ay média ak i conférence walay gàmm walay màggal walay cant wala daayira wala tàkkusaan ci anam googu rek lañ mën a jànge kon faawu rek ñu respectente waaw moo tax ñaare sénégalais yi wala ñenn ci nit ñi léeg-léeg suñ fekkee ñaar ñu bokk ndey wala ñu bokk baay wala ñu bokk ndey baay wala daal ñu am ak jege lool ci mbokk kenn ki di wax keneen ki nag yàlla nattoowu nattoowu ko wax dañ naan ñaare li ma leen di wax seetlu leen ko bu baax ñaare dañu am tendance di wax naan kii noppi mu ëpp xam-xam waaw saa yu gisee rek ñaar ñu jege ci mbokk moo xam ndey lañ bokk wala baay wala ndey baay wala nuñ mën a bokk rek kenn ki yàlla nattoo ko muy wax keneen ki yàlla nattoo ko moom du wax ci ay média yooyu te fekk ñoom ñaar ñëpp nag ñu jàngaleñ en général ki dul wax nit ñi dañ naan dafa noppi rek de waaye mu ëpp xam-xam loola nag dina ragal loo ñu bëri dana tax ba léeg-léeg kanaroon a wax far daa di ragal bàyyi am koo xam ne sax daana wax mu dégg loola far génn ci wax ja yaakaar ne lam daan def du noona wala sax tey koo xam ne daawud wax mu ne kon kay man sama ñàkk wax ji daal naa ci sax te fekk déedéet kenn ku ne ak la ko yàlla may kenn ku ne ak la ko yàlla nattoo wax ñu lay dégg léeg-léeg sax mën na bañ a aju ci xam-xam bu bari léeg-léeg mën na ci aju nag léeg nit ki mën naa boole am xam-xam ak mën a wax léeg-léeg itam nit ki am xam-xam te du mën a wax léeg-léeg nit ki itam mën a wax te du am xam-xam kenn ku ne daal ak ni ko yàlla yi cëralee waaw moo tax mbokk yi faaw rek euh, wax jëf ñuy ànd ndax su fekkoon loolu amul yàlla du wax ne qawlum maarufun wa magfiratun xayrum yat sadaqatin yatbauha ada kon foofu sax day mel na ni yàlla waxee mooy léeg-léeg sax am na fu wax di gën a jëf te mooy nit ki su fekkee dafa nar a saraxe te saraxe jëf la waaye mu leer ko ne bu saraxee ba noppi man naa wanewu wala muy chantage kamu mu saraxoon di ko teg ay jëf yu diis bu lànkee mu ne ko ah yow de gore ndax maa la joxoon lii nangam nee nañ de sarax su fekkee nar naa ànd ak loolu kon bañoo bañoon a saraxe tey wax waxu yiw waxi njekk tey jéggale moo gënoon sarax boobu nga xam ne day ànd ak wanewu wala ànd ak waxi chantage kon euh, foofu wax wad na fi jëf euh, yàlla subhaanahu wa taala nee na ittaqullaha ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum kon fii ñi gëm ragal yàlla te ngeen soigné seeni wax ba mu nekk wax ju jub wax ju jub ju tegu ci yoon nee na su ngeen fexee ba tàggat seen làmmiñ ci wax ju jub dinaa leen tàggatal seeni cir ba mu tënku ci jëf ju jub waaw jëf ju yiw te saa yu ngeen rëccilee dinaa leen ko jéggal waaw mbokk yi kon wax ak jëf dañuy ànd kenn du samp rek wax daane kenn du samp rek jëf daaneel wax kenn du samp rek jëf daaneel wax bu yàggee sax jëf day daanu mbokk yi kuy aji màkka lan lay ubbee ak ajam ginnaaw bu armalee day làbbay kawu kon aj bala ñu koy jëf sax dangay ngay njëkk wax ne labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata lakawal mulk la sharika laka labbayk kon da ngay njëkk a wax yàlla ne ko wuy si naa la ba noppi soog di ko jëfal jëfi aj yi muy manaasikul xaj waaw kon wax day xàllal jëf waaw yàlla lum wax inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma staqaamu waaw ñi nga xam ne dañoo wax ci seen ne nangu nañ ne yàlla mooy suñu boroom ñu teg ca jub ginnaaw ba ñu soog a jub kon yàlla dane ah, da ngay njëkk a wax ci saw làmmiñ benn jumla benn phrase benn kàddu guy wane na nangool nga yàlla soo ca jógee itam nga soog koo nga soog koo jëfal nga soog koo jëfal muy daal di xocc ci yoonu jub yi daal di tegu ci yoonu njub muy di jëfe ndigal bàyyi tere kon jëfe ndigal bàyyi tere yàlla daf ñoo njëkk sant ñu wax ko soog di ko jëfee waaw am na ñu mën a seetlu ñoo xam ne dañ ne liy wane ne wax lu am solo la kenn du samp jëf rek daaneel wax mooy jaan jaan ji màtte dafa jëf ba lore ndax màtt gi en tant que jëf la màtt gi jëf la waaye suñu àggee ci luggukat bi luggukat bi day wax ba saafara lor ji nga xam ne moo juddoo ca mat màttu jaan ja ndax jaan su màttee day bàyyi tooke tooke jooju muy bàyyi ca kam màtt nag su demee ca luggukat ba luggukat ba day wax ba dindi ko day wax ba dindi ko kon jaan dafa jëf ba lore luggukat bi wax ba dindi lori jaan ji kon kenn du samp jëf daaneel wax mbokk yi ci wàllu sëy danañ ci jànge bu baax a baax ne wax day gunge jëf mbokk yi su fekkee wax rekk mooy taxaw jëf moom taxawut na góor fekk jigéen rekk muy jëflanteeg moom ni boroom kër di jëflanteeg soxna te fekk wax jiituwu ko yaakaar naa de su boobaa aa ah, lor rek a ciy juddoo waaye kon ndeke góor sax bala moo sañee jëfandikoo jigéen ni soxna faaw nag mu ubbi ay buntu ci wax faaw mu ubbi ay bunt ci wax nga wax ak soxna si wax ko sa mbëggeel ah bu fekkee mbëggeel ga jubu na ko buy d'accord mu d'accord su d'accordee nga waxtaan ak ay kilifam bañ nangul la nga soog a jëf nag ci indi can yaag boo indee can ya eh, tabaarakallaahu eh, ñu fasal la nga daa di eh, jàpp bés yóbbu ceetal su ko defee jëf ya cay tege soog cay jëfe soog cay tege kon mbokk yi euh, waxangoog kon ba léegi itam jigéen gi nga takk mu nekk sa soxna soo waxoon wala soo jëfoon ba fay jigéen gi nga takk mu nekk sa soxna soo jëfoon ba mu fay maanaam ci misaal nga dóoroon ko ba mu fay wala nga dóor ko ba mu ñaan la baat sëy ba tas fay na dem ci ay mbokkam wala tas na dem ci ay mbokkam nga bëgg cee jotaat da ngay wax ba jotaat ci moo ne da jëfoon ba ñàkk ko de ndax da nga koo dóoroon mu fay wala mu tas mu ñaan la baat nga may ko ko mu tas nga demaat ba si yàgg sa xel si nga bëg cee jotaat nooy def dangay ngay wax ah moo ne ko woon dimbali leen ma rek ngir yàlla moom kay ngeen ma ko joxaatee dinaa ci fas jom waxa waxa waxa wax ba jot kon mbokk yi wax ak jëf daal dañuy ànd rek waaye kenn du samp wax daaneel kenn du jëf daaneel wax kenn du samp jëf daaneel wax waaw euh, mbokk yi ngëm yàlla sax dañ ne al iman ictiqaadun wa qawlun wa amal ngëm yàlla danga koy fas ci sa xol daal di koy wax ci saw làmmiñ muy muy baati seede yi ashhadu an laa ilaha illa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh soog jëfe nag muy li yàlla santaane nga def li mu tere ngay jéem sa kemtulaay kàttan ci di ko bàyyi waaw kon suñu diine ji sax kon ci ñett la tëggoo pas-pas ak wax ak jëf kon kenn du sampu jëf daaneel wax xam-xam boo mën a gis damay waxtaan ak ñenn ci ay scientifique yoo xam ne dañ ne ñoom li tax ñu taamu série es yi muy série scientifique yi wala séeri T yi muy séeri technique yi dañoo gis ne série L yi muy séeri littéraire yi wax kase la waaye bu dee série S yi wala T yi kooku jëf la mooy leen waaw fexe leen ba série S wala T duñ taxaw ci classe di ko expliquer nag moo xam crayon la ñuy utiliser moo xam tableau classique moo xam tableau numérique moo xam ay micro moo xam luñ mën a doon xam-xam boo mën a gis dañ koy théoriser soog di ko waaw moo tax kon daal nañu bàyyiwaat xel lu mel noonu wax ak jëf tabaarakallaahu wax mooy xàllal jëf wax mooy leeral jëf waaye jëf mooy dëggal wax kon kilifa yi waxoon ne kenn du fay wax bàyyi jëf gàcce ngalaama ñoom kenn du ñoom ñu sori déggin lañ waaye ñun nag niñ ko bëgg a moo jaarul yoon muy lan jàpp ne nit ki daal saa yu jàngee ba ne ar dafa war a noppi rek du wax dara su boobaa ñiy réer dinañ gën a réer kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.